ami fidèle internet Medina TV ak Siweulko TV mbégte la ñuy am saa su ne di jàkkaarlu kenn fii si seen ñaari chaîne leader yi tey ñu toog ak benn jeune boo xam ne nii euh, ku mat a bàyyi xel la koo xam ne ni nit ñi namm nañ ko muy Aziza xanaa dañ koy bàyyi mu nuyoo ak chaîne internet Medina TV ak Siweulko TV Aziza ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay euh, di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñu seetaan ak mbokku télé internet yi ñu seetaan à travers Medina TV à travers Siweulko TV. di am mbégte ak contentement rafet rafetlu invitation bi di nuyu euh, kilifa diini ak kilifa aada yi di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm sax yàlla na yàlla dolli sutura yàlla na yàlla xeb dolli. Mhm. Aziza euh, ñu gëjoon la gis te xale yi nam xale yi bëgg la lool toog lu yàgg gisuñu la xamuñu si loo ne Aziza foo réer. waaw bon maa ngi fi sax xam nga musique c'est un long chemin yaa ngi comprendre c'est long chemin boo xamante ne si et du carrière benn at. carrière bu ñaari at parce que liggéey la liggéey la pour am foo toll pour euh, bu succès ñëwee wala ëllëg ci biir lépp lu mën a ñëw da xam na koy téewee da nga koy maîtriser en plus dafa boo xamante ni si euh, ñun ñëpp mën naa ne amaana sax xam nga na lu des mais teewul la liggéey parce que mi ngi saa bu xëyee da gën di jàng da ngay gën di liggéey. Mhm. liggéey bi fan la toll. waaw liggéey bi bon maa ngi ànd ak sumay saf ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey euh, benn album boo xam ne Esprit Life la quoi. boo xam ne esprit life la bientôt war naa war naa génn ak euh, ay single ak ay clip vidéo euh, li tax nga toog rek sa xel dem ci esprit life waaw bon parce que xam nga dafa morceau yu ñu joué soirée gars yi dañ ko dañ ko sentir bëggu ko wax dëgg fi yàlla te il ñu ñu ñu ñu ñu génne leen ko defal leen ci ay yu day waar xam nga boo fee ñu mën ko cons ba ba ba leen di ñëw parce que xam nga ne bon ñun ñooy dem ak suñuy propre moyen à part nit yu ñu dimbali di ñu jàppale ñooy dem ak suñu propre moyen kon dañuy def tepp tepp rek li ñoom as néew. Mhm. di ko ci def pour pour pour pour pour jéem benn périmètre quoi c' est pour cela quoi. mais Aziza ñu gis euh, macha allah talent bi nga am gars yi di la bàyyi ngay demee sama bopp da nga nekkul fenn wala wala nu mu demee noonu wala gars yi la sul sul wala yow yaa yow toog dëxuñu ne damay demal sama yoonu bopp. non xam nga tey jii àdduna ku ci nekk maanaam ndimbal da ca fekk loxo borom mhm. man ku ma xool xam ne yaa suma taayu lu ma xam nga gëmuma kenn sama bopp rek laa gëm wax dëgg fa yàlla ak ñi may àndal di liggéey ak ñoom macha allah fépp foo xamante ni sama nawal mu ngi fi joué maa ngi fa joué maa ngi jaante di tëgg samay soirée lépp maa ngi koy def ku ñëw nag pour am sa yéene dimbali ma ubbi naa la samay porte bu ñuy dimbali ma. d' accord man dama la gisoon ngay ànd ak euh, waa Subatel man ba foogoon naa ne sax fa fa nga nekkoon. parce que gis nañ euh, soirée yi maanaam lépp lu am yaa ngi fa xam nga pour man sax soirée nga nekkoon moo tax bëgg ma ne sa propre moyen ngay affaire bi jaaxal ma mais nu mu demee noonu est ce que mën nga ñu ñëw ci loolu. waaw bon tout d' abord euh, damay nuyu sama papa Matar Diop Subatel Diop Diop ak Arona Rokhaya Ndiaye Chéri Kia Baye Mouhamed Amir Diop xam nga muy suma suma papa koo suma papa la. parce que nit ki bu lay jàppale te nekkoo ci labelam boo toogee da koy sant Matar aw ma fayam barki alxuraan Matar Diop aw ma fayam. ñu bëri nag dañoo foog ne Subatel laa nekk ndaxte lépp luy événement boo xamante ne si Subatel moo ko organisé dañ may woo ma ñëw maanaam maanaam kon kooku mu may dimbali kooku mu may dimbali may nuyu suma grand yi nga xamante ne si ñu fa ku ci mel ni Prince ak Momar Magor the best série loolu xam nga ku ci mel ni euh, ñoom grand Assane Fall ñoom ñëw waaye mention spéciale à Matar Diouf Subatel parce que xam nga tax ma jàpp ko dama def concert décembre. bientôt sax léegi mu am un an muy le 17 décembre man def concert def concert ñu teg lépp ak suñu moyenu bopp teg lépp macha allah ak suñu moyenu bopp jaayante ko amuñu sponsor ku ne xam ne concert son et dafa metti jékki-jékki yi ci dernier moment yi ñu war a jox waa seen lekk bu ñu wàccul ñu courant instant fi mu vidde ma woo ko ko loo nekk ndax man ndax yaa ngi am jàmm dama taxaw dama kale te nii nee nañ su ma jox ñu wàccee courant bi moom foo nekk ma ne ko maa ngi fi mu ne ma ñëwal ma ñëw mu yëkkati xéwal bëri jox ma nee ma loo soxla woo loo bëgg wax ma yaa ngi comprendre day jëkki jékki sax su ma ko jëlee sax day toog woo ma laay waxee yaa ngi day jékki-jékki toog ma ne ma ci la nga nekk gënaal dégg de mbaa yaa ngi góorgóorlu looy def daa ci la nga nekk ma ne ko maa ngi góorgóorlu lan la lu ma ne ko noonu dara pensa ma dem këram toog fa reer waxtaan kaf échanger xam nga kon koo maanaam mu ngi may dimbali léegi nag ñu bëri dañoo foog ne maam ni may demee ci activité suba teel yi ñu bëri foog ne suba teel laa nekk te alors nekk ma fa waaye Matar dama koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm parce que mu ngi ñi mu ñi mu ñi tënk yaa ngi comprendre mhm. ñoom ñëpp mu yor leen boole leen ci benn industrie musicale ci benn entreprise muy Subatel musique su ko neexoon mu ne loolu rek doy na du dimbali keneen waaye Matar waxuma man kese mais ñëpp lay dimbali fii amul artiste bu bu buy taxaw ne Matar musul musul musul participer musul sama carrière non ñëpp lay dimbali ñu nekk Subatel ak nekkul Subatel ñëpp la boole yemale yaa ngi ko mën a mhm. mais amaana su ma su ma su ma dugg Subatel bu jotee rek dina yomb incha allah. bon <laughs> parce que foofu laa doon ñëw nii sax bon euh, gis nañ lu muy lu muy lu muy def yëpp aussi su lu souligné nga ko mooy ko ne ndimbal daf fay fekk loxoy borom macha allah ngay nekk jeune nekk sa ruxu di liggéey ñun ñii xam nañ ci dara mais donc li tax Matar la lay xaar. li tax mataar dugalu la Subatel wala bon talent bi dafa des par rapport ak si côté wala dafa am lenn loo xam ne. je sais pas quoi lan moo des en fait. bon du dara peut-être bon li des moom mataar xam na ko bu jotee rek yomb xam nga nit ku lay dimbali. Mhm. di xam ci looy nekk di xam looy def peut-être ñoom am na ci lu nekk rek. <laughs> kon pare nga pour dugg suba daal. non pare naa nii nii nii su ma woon damay dem parce que en fait j'ai j'ai j'ai tellement envie dama am envie parce que dafa am loo xam ne tàgguma sama bopp mais mu ngi ci man mhm. te wax dëgg fi yàlla te amaguñu benn doole bi amaguñu benn doole te mënuñu moo tax duñu mën a duñu mën a génne yenn bagages yi. mais tey ji liñ naan ko am wiir waaye doo doo daanu te ji bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu signéwoon ci label tey maanaam ci la gars yi di gën a comprendre maanaam xam nga label dafa nekk loo xamante ne si maanaam day dimbali artiste day dimbali am fu mu la dalay jële fi yóbbu la fële moom lu bëri loo xamante ne si yaa doon daw di ko jaante xam nga leen di yenn charge day wàññeeku surtout ci wàllu production yaa ngi li nga am mooy bon yow di nga toog am sa idée bind say morceau label bi tamit directeur artistique bi bind ay morceau ñëw ñu ne la répété lii kaay way jour nangam ñëwal enregistré répétition da ngay répété jour temps maanaam lépp loo xam ne en fait yow li ma li ma li wax booy yi rek ñu ngi xam ne ñoom laay liggéeyal li ma wax rek man bis na ñëw bis ñëw maanaam dootuñu sonn ci dara man sax dootuma sonn ci dara may toog yor sama téléphone alors defal lii defal lii defal lii yaa ngi ko mën a naan lépp yemb bis na ñëw loolu day am incha allah. Euh, mais nga foog ne par exemple tey su la Matar permettre nga dugg suba teel. c'est une très bonne que aussi loolu ñuy ñaan mais euh, est-ce que du doon benn handicap ci yow parce que vu que guro calibre yu fa daje ay Ibra Nadio euh, Sidi Diop récemment ñi nga xam ne ñëw na Bambali ak ak ak ak ak ak Mandiaye ak ñu jógee Gambie donc loolu noonu pour Persefa est-ce que nag waaw pour voilà donc pour Persefa est-ce que nekkul lu doon loo xam ne nii day jafe est-ce que gunul aussi nga doxal sa moyen bopp doxal yow kese nga xam ne dara du la tënk ba li nga war feeñee li nga war a doxal yëpp nga doxal ko ba ba ba ba montagne dañ naan montagne ci kaw lay daje quoi ba ba ba lépp leer quoi. waa bon li nga wax noonu tamit euh, dëgg la waaye tamit xam nga tey jii euh, suba teel yaa Sidi Diop yaa Ibro Nadio yaa Bass Thioung euh, yaa yaa kii nii nu mu tuddati sax yaa Sidika yaa Bambali yaa Mandiaye yaa Kamal yaa Ousmane ak tout récemment ñu ñoo jugee Gambie yaa ngi mais ku ci nekk lii sa wërsëg yaa ngi koy ku ci nekk am nga sa public bopp. man tey ji mu ñëwoon sama teel tey ji quoi qu'on puisse dina gën a saan baawoon leneen man denoon leneen en fait xam tey ji misaal gi mën naa bañ a sori nag ku taxaw ci seet ku ne sa bopp ngay gis man gëwma kenn kenn a une manière de parler si ñooy mag dama jox ciru rak dama leen jox la tey dëgg la di ñaan eh, ñaari kuréel yu mbalka mm-hmm. foo dem fu nekk daam kenn xam ne moo jiitu ñeneen topp te di ku ci nekk ñoom nekk ñoom Subatel ñëpp am nañ seen public bopp te di ku ci joué amul kenn koo di joué soirée muy échec non non parce que ku ci nekk amoon sa public bopp ku ci na am nga ñëw Subatel maanaam kon boo ñëwee Subatel wàññiwul dafa yokk yaa ngi comprendre maanaam boo ñëwee Subatel Subatel wàññiwul la day yokk label day yokk visibilité bi day gën a daw yaa ngi comprendre promotion bi day gën a daw maanaam yow li nga xam ne si peut-être parfois da loon jafe petit à petit lépp day commencé yemb te Subatel dafa neex Subatel label boo xamante ne si dañu fi yor artiste <laughs> da ngay ñëw léegi moo tax def rek dañ leen réglage léegi teg la fu nooy nga commencé daal oto xam nga sa xel dal gisoo bambala temps ni xel mi dalee sama xulóowaale dafa dafa mel dafa mel dafa mel yow looloo looloo dina la dugal ah. mais juste man dama jàpp ne yow faramaaren nga Aziza ah waaw bon xam nga euh, yàlla yàllaay yàllaay bind bind et que niroo day am ni ko jàppee noonu la ko noonu ko ñëpp jàppee et que et que mooy loolu xam nga diggante Fall ak Seck loolu sori na waaye yàlla mooy boole yàlla mooy bind te lu neex ci xol lu nekk feeñ ci kanamam waaw noonu la fa demee. damay ñëw toujours si Fada Marème Bambaali bon gis nañ li fi xew yëpp sa diggante yaa ak moom Aziza loolu moom euh, du ñu def émission ba pare te duñ ko tudd muy Fada Marème yow it xam nga nga bëgg Fada Marème aussi euh, nga am ay problème yoo xam ne nii amoon ngeen ko est que mun nga revenir si problème yooyu. àdduna teenu xel la ba baagu xalaat la ñu koy dootee xam nga te bon amoon na lu fi xew su ma diggante ak Bambali en fait je parlais de la famille musicale mais pas famille paternelle fa laa doon waxee ci su ma diggante ak moom. leeralal gars yi mu leer xam nga sama <laughs> yi dama xóot ci man quoi. <laughs> mooy bon dafa amoon coow lu amoon ci diggante euh, moom Tida je voulais pas revenir en arrière tu vois et ma amoon ma génn defoon ci benn communication ñenn ñi jëlee ko côté bi ñenn ñi jëlee ko côté bee. loolu amoon fii moom mu côté mu xamoon am ay ay ay tiraillement xam nga de gauche à mais bon après gars yi comprendre nañ fi ma doon waxee parce que man amul benn émission boo xam ne naa ko taxaw ne man Seck laa sant wala man je partie de la famille. yaa ngi comprendre parce que tey jii yaakaar naa ne famille boo ci bokkee te loolu te ko am en fait je parlais de la famille musicale ba famille paternelle après bon waxtaan nañ juboo ci après on a passé à d'autres choses quoi. moo koy ñaanal yàlla ko yàlla defal jàmm maa ngi koy gis temps yi mi ngi def affaire yu nice macha allah ñoom ñëpp yàlla yàlla defal jàmm yàlla ñu yeggale seen euh, suñu jógee si Bambaali toujours si même famille bi la ñuy dese gis nañu aussi ñëw tuuti si actualité gis nañ coow li coow lu lëmb réew mi muy diggante Mandiaye Seck ak Wally Ballago Seck Aziza yow loolu naka nga ko jàngatee fii yu fi jot a xew nii yëpp ban analyse nga si am waa ci li li ci jot a xew yëpp nag bon ku ne xam na ne affaire de famille dafa xaw doy waar waaye Wally Seck moo toogoon 2STV yi raxu invité ko suma jumul moom la ak Viviane ak Dip su ma jumul ah mu ne booy ci ay conditions yu métti la ñu defee musique yaakaar naa image yooyu mu ngi fi mu ne booy ci conditions yu métti la ñu defee musique yaa ngi mu ñu ñëpp te ñoom Bambale ak ñoom Madiaye ci ay conditions yu métti la ñu ko kooku wax ji jeex na ñoom dem nañ si wax ji jeex na. doon nañ xam ne bu ñu demee suba teel seen lépp dina baax seen lépp dina dox macha allah te ku xool booy xam ne booy leer nañ bambale xel mi dal na temps yi commencé na am yaram yaa ngi comprendre ah. sànni xeer ah. na am yaram xel mi xel mi dal na ah léegi mu ngi noonu wax jarul. mais mais mais gis nañ ne aussi Wally Seck seetaanu leen gis nañ aussi relation yi ñu fi amoon yóbbu na leen jël na bambale te ko au de la scène. xam nga seetaanu leen aussi problème boobu noonu mënuñu ko woon régler autrement plutôt que ñu koy teg ci tele bi ñëpp di si jàkkaarloog moom. waaw xam nga tey jii li nga wax dëgg la parce que yëri téem ci biir kër gi lañ koy koy fóotee waaye man Ndiaye démb dama ko si daan mu wax wax ju am solo démb ci émission bi ko kii invité woon euh, DJ If mu ne bu fekkoon ne su ma demee duñu ma téye wala su ma wootee dañ ma jël kon kon kon du ma wax kon ça dafa sës rek moo tax mu bu dee wax na sax yaa ngi comprendre mais dafa dafa sës fii ku sës wax. tamit gis nga gis nga projet bi mu nekk est-ce tamit du si loolu. waaw mais dëgg la tamit Wally mu ngi ci ay business am yaa ngi comprendre nekk ci ay liggéeyam mais ay rakam ay rakam lañ man loolu laa ciy wax ay rakam ay rak ay rakam lañ yaa ngi bu leen dimbalee ay rakam lañ bu leen dimbalul rakam lañ man loolu du ma ci du ma du ma du ci wax yaa ngi comprendre mais booy nañu gëm seen bopp dëggal seen bopp te xam ne yàlla dimbal na leen ñu ngi subateel nañu toog noppi liggéey seen liggéey yàlla mooy ndimbalu yàlla bu ñëw du ànd ak pënd du ànd ak poussière du ànd ak barki sëñ Fallou dañu toog nekk supporter gëm seen bopp yàlla dimbal na leen Matar bëgg na leen woon na leen dañu toog temps seen xel commencé dal booy nañu toog noppi te liggéey yi supporter moo mujjee ñëw moo ëpp doole yaa ngi ne si nekkul ci man subatel moo mujjee ñëw moo ëpp fexe nañ ba bokk fexe nañ ba marqué seen empreinte fexe nañ ba indi ci suuf loo xam dafa neex sa jàng de non jàngu ma sax su ma neexee jàng su ma su ma su ma neexee jàng su ma neexee sax que Matar parce que Matar su neexee ma ne am naa salaire ah am hmm. am naa salaire suba su ma neexee jëng ah, mais nit ku lay dimbali di la kii boo toogee da nga koy xool lu baax loolu kese la hmm. yaa ngi comprendre loolu kese la booy manjaay bambali toog leen suba teel ngeen liggéey yaa ngi comprendre Matar Diop nag ah yow Diop Diop ak Arouna Rokhaya Ndiaye surtout Lat Dior ku ne xam ne Lat Dior ay samaam Matar dama bëgg nga may ma oto ba defee nag ma mel ndox bi métti na xam nga te yow sama papa nga te yaakaar naa ne mën nga ko yow loolu mën nga ko jubóo jubóo dama la koy ñaan balaa at bee jeex Matar nga may ma Hyundai Elantra wala Ford Fusion na doon oto rek na doon ndaamaar xam nga ma toog nongu di dawal xam nga yow sama papa nga sama PDG nga Seydi Kiya Baye Mouhamed ko xaarante na boo may oto bi nag damay woo waa Siwal ak waa Medina TV Siwal ko TV ak Medina TV dama la woo ñëw jël ko en exclusivité parce que fi laa ko te xam naa ne ñii duñ ma jigéen yi te jigéen duñ ma benn yoon macha allah papa jubóo jubóo aarona waaw. Euh, macha allah avant ñu tëj projet yi lan la. waaw bon projet yi nag euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi waaj ay affaire parce que ku ne xam ne décembre yi waroon nañ jouer benn dîner de gala bu ci yenn salle nekk fii mais bon dafa am lu ñu xawoon tënk. moo tax te te bi affaire bi ñëw ñu am benn laps de temps boo xamante ne si pour pour pour ñu def ko parce que ku ne xam ne dîner de gala boo koy day doon dafa xamante ne si daam benn surtout ñu daal benn promotion bi. léegi nag par la suite nag ci la mujjee ci la jël benn initiative parce que ku ne xam ne décembre dafa bokk ci presse bugg artiste mhm. yaa ngi comprendre léegi nag ñu joué benn soirée spéciale hommage sargal ma ci sargala la suma yaay Mbengue Thiata Seck yi taw ma moo ma moo di madame Dame Sandela Thiamat nekk damel di suma jigéen la suma xarit la muy Abibou Guèye yàlla def nekkatu fi ma koy ma ko ci rendre hommage parce que nit ku baax la woon ma jël hommage loxo ki nga xamante ne si mooy benn fay mu alaaji mbàkk yu fay muy DG Promobile ah benn xam naa ne dinaa fa ñëw te dinaa la seet te dinaa la song si incha allah foo fa ma nu ma def ak yow xam nga may nuyu nag suma suma suma suma waajur bu jigéen du nuyu suma waajur bu góor du nuyu sumay doomu bàyyi parce que ku ne doomu bàyyi nekkul laa fekk danga gis ñu nga bokkal donc dëgg fa yàlla ñu bëgg ma accepté ma franchement parler di nuyu ñi nga xamante ne si euh, ñoom lay àndal di liggéeyal ku ci mel ni Souleymane ah Zaki xam nga Adama Ndiaye Cheikh Mbacke nga la fii xam nga ñoom muxaa ñoom Omar Omar moom ndeysaan dafa bëgg Matar Diop suba teel Omar xam nga dafa bëgg Matar di di di di nuyu ñoom Bamba Bamba borom Bamba Karim business xam nga di nuyu suma grand yi nekk fajaa ku ci mën ñoom Abo ñoom liñ jàllo di nuyu cuun papa cuun séeri séeri sofi ku ne xam na ne ajaratu asumbaay mooy sa mooy sa yaay sama transfert bi mbokkum yaayu Tintin mbokkum yaayu Papa Ndiaye sama douanier bi xam nga mbokkum yaayu euh, Cheikh Ñing chéri Maguette xam nga di nuyu ñëpp su ma limee damay juum wax dëgg fi yàlla di nuyu ñëpp parce que su ma nee lim rek damay juum di nuyu suma yaay Maguette Thiam xam nga di suma yaay tamit ajaratu Khoreja Diouf di ko siyaar di nuyu njabootam yëpp di am mbégte ak contentement di leen sant encore une fois yéen waa Medina TV yéen waa Siweul ko TV di nuyu ki nga xamante ne si fi nga ma fekk tey muy sëñ Abdou Aziz